bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah saaxibi haadihi dikra al atira wal mawlidi sharif wa ala aalihi wa saxbihi wa xadiimihi wa ummatihi wa man daha bi dacwatihi ila yawmi ddiin alxuduuru alkarim in al ixtifaala bi miilaadi nabiyi alhuda wa rahmati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladi arsalahu llahu shaahidan wa mubashiran wa nadira wa daahiyan ila llahi bi idni wa siraajan munira huwa ixtifaalun bil insaani wa xissatihi wa karaamatihi wa xurriyatihi wa taskiirun li haadihi al umma min annahu awlaa bihim min anfusihim wa alayhim al iqtidaau bihi fi samaahatihi wa rahmatihi wa adlihi wa ihsaanihi wa qiyaamihi bi waajibihi fa huwa kama yuqaal qudwatun lil xaakimi wal maxkum wa qudwatun lil ganiyi wal faqir wa qudwatun lil insaani fi kulli majaal wala walaw iltasama al muslimuuna bil manhajil axlaaqi li siirati sayidina muhammad alayhi salaatu la saaral mujtamau wixdatan sulbatan mutamaasikatan laa tuassiru fiihi al awaasif wa fi lxitaami laa yasihuna laa yas laa yasihuna laa yasihuna huna laa yasihuni huna illa an nuhannia almuslimina bismi alxalifati alaam li taifati almuridina mm-hmm. aynama kaana wa naddahu llaha subhanahu fi hasihi leylati almubaraka an yuwaxida kalimata al ummati wa yajmaha shamlaha wa yasimaha min kulli maa yudabbaru laha min min xiwal baax yi wa tuxyaan wa kulli aamin wa bi xayr asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi nuyu mboolem mbokki yëpp di nuyu mboolem taalibi yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di ndokkeel jullit yëpp ci turu sëriñ Sidi Muxtaar di leen nuyu fu ab jullit mën a nekk ci guddi gu màgg gii nga xam ne mooy guddik sallallahu alayhi wa di guddi gi nga xam ne eh, yonente bi njub bi sallallahu alayhi wa sallam di yonente bi yërmande ji wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ki nga xam ne ni ko sëñam di jatara doon waxe léegi rek ki nga xam ne yàlla da ko yónni mu ñëw di seere di bégle di xuppe tey woote jëm ci yàlla ci ndigalul yàlla di làmp bu leer bi sëñ bi daana wax ndeysaan naan wa daahiyan ilallaahi bari na waaye bi ni ji moo moo moo moo dul mën a <laughs> ku tedd gi daana wax <laughs> feetal guddi gane àdduna ak bi mooy feetal doomu aadama rek ak tedd ngay doomu adama nga di ko feetal ak karaamee doomu aadama nga di ko feetal ak liberté bi doomu aadama nga di ko feetal ndax loolu lépp yonent bi moo ko indi moo tax doomu aadama tedd moo tax doomu aadama libre moo tax doomu aadama eh, am tedd nga joo xam ne eh, meletul ni bahima yi kon màggal ko ba tey it fàttali la xeet wi yonent bi moonu gën a yeey ci sunu bopp jaadu woon na ci lii guddeeg bëccëg lépp ñu fàttaliku yonent bi te di ko màggal ndax yàlla nee na annabi awlaa bil muminina min anfusihim kon moom moo nu gën a yeey ci suñu bopp waaw yonent bi daal mooy prioritaire ci lépp <laughs> mooy gàttal bi kon nag war guddi ma guddi gi boo gisee sëñ bi doon soññee daf daf ñoo bëgg a fàttali ne sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yeey ci noonu waaw hmm. war nañ ko roy ci nim ci tabagim tabe woon ak yërmandeem ak maandu gi maanaam sis sis bi mu yoroyoon hmm. ak nim doon rafetale ak li ko war ni mu ko doon jooxe waaw ñun jullit ñi war nañ ko cee roy ndax moom yàlla may na ko mu mën a mu nekk roy kaayu kiy gouverner ak ki muy gouverner ñun ñi nga xam ne eh, dañuy gouverner ak ñay gouverner ñëpp yonent bi moom roykaay la ci noonu sallallahu alayhi wa ñi am ak ñi ñàkk mm. ku ci ne mën ngaa roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax googa wet dox na ca noonu mm. boo ko ci royee bi nga ñàkkee doo ko yëg bi nga amee doo bew <laughs> bi nga bi nga nekkee xaakim hmm. yor pouvoir hmm. jàngal na loo xam ne na ngay wàcce ba tolloog nit ñi hmm. ba ba ba pouvoir bi doo ci gaañe doo ci lore te te danga da ca taxawal lu ñëpp ànd loolu jàngale na kon bu ñi bu jullit ñëpp warlu woon jaar ci siirab yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñu indil ci wàllu ay jikko kon société bi dana dëgër dana nekk benn jàppante dëgër te benn càllameer du ñu mën a mënal dara kon nag ñu ngi ñaan ci guddi gi nga xam ne guddi ñaan la yàlla ci baaxub sëriñ tubaam mi suñu yaakaar yàlla gën a bennale baatul jullit ñi gën a dajale seen mbooloo gën leen a musal ci lépp loo xam ne ñu ngi koy ragal musal ñu it ci pexe yi ñuy pexeel ummatul islaamiya xiwal bax yi wa toxyaan gi seeni pexe yàlla musal ñu ci mooy mooy borom doole yi hmm. yonent bi alayhi salaatu dafa doon koo xam ne lu waaye baax le lu waay baax le ci jikko hmm. ndax ku ne am nga jikko hmm. wa kaana abul anbiya ibrahima xawiyal xujjati ibrahima ku amoon ku mënoon tontu la loo eh, eh, xaatimu taa taa ku ku amoon ak mbaax la karam la amoon moom ba ñëpp siiwee ko ci tabe ah, lool imaamu Aliyu nekkoon na di siiw bi sajaati faarox ñëpp xamoon na ne dafa siiw bil adli ci maandu dégg nga ko ku ne wa hakasa sifatan karima xalladat isma saahibiha isma saahibiha wa abqat dikraahu aaliya wa jahalat makaanatuhu azima maha wa taxaadumi xosuur lu yàgg-yàgg ku ne am na jikko ju baax yu yoo ci ñoom yoo xam ne lu àdduna soppi soppi ñu ngi koy waxtaane ni diw ko melo nangam la fa kayfa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allasi xasharat lahu almakaarimu wa jamahat fihi almahaamidu falan naskura falan nadkura sifatan min eh, sifatan fadila illa wahiya fi rasulina alazim alzahir walan yakuna xuluqun karimun illa urifa han nafsihi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa nachatu ala ahsanil kamalat amul benn jikko bu ginnaaw ñooñu nag noonu lañ meloon naka yonent bi nga xam ne makaarimul axlaq yëpp dafa daje ci moom mboolem mahamid yi lu ñuy sant rek daje na ci moom doo tudd wenn melo wu rafet ndare bu da ko fekk ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye nan lay mën a bañe bañe mela noonu mm. tam moom dafa waxal boppam ne yàlla ma yar mm. te dafa rafetal sama ber yàlla mi ko bind moo seet nëm gëne rek mm. mu melal ko noonu sos ko ci gën jaa rafeti madd yi bi madd yëpp dajee ga ci gën a rafet ci la yàlla sos yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te jikko euh, mooy lépp boo gi saxaaba yi taxallama saxaabatu min annabi salaam su al iman wal ilm wal ilma wal ihsaan fi l qawli wal amal sa saxaaba yi dañoo euh, jàng ci yenent bi sallallahu alayhi wa gëm yàlla ak rafetal ak ak ak xam-xam ci wax ak ci jëf ndax yonent bi fii ne eh, risaalaam bi lépp boo ko seet jikko la mm-hmm. al axlaaqu lubbu risaalati nabi sallallahu mooy saal bi faxat buxisa li yutammima aadama yonent bi salaatu wasalaam eh, binaaw bi nga xam ne yàlla ko tabaxoon tàmbali woon ci aadama te jeexale ko ci isaa wantaha bi Iisaa alayhim salaam yonent bi moom la yàlla indi la la li nga xam ne ku dugg ci tawax bi booba da ngay wax ne lii daal moo ci desoon mm. yonent bi neen dañ ma indi nag nee ma taf foofa mm. tawax bi daal yi mat <laughs> kon yonent bi noonu la ko yàlla defaloon mm. moo tax euh, <coughs> ñoom saaba yi sëñ bi ne lahum ladallaahi taxsiisun bi ma bi ma jagle ñoom ñëpp ñu nekk biddiw boo xam ne lu mu lëndëm lëndëm ku ci ñoom daal di gindiku ñoom ñëpp it bi nuskhi lil xalqi wal imaani xat jubilu <coughs> turran waxaf di ahlatu kuffar ñoom ñëpp it dañ leen a móol ci laa biira ak gëm yàlla ñoom ñëpp nag nee kenn desut ak uh, suufeel mm. kéefar yi nga xam ne dañoo weddi yàlla waaw loolu mooy seen jikko sëriñ bi nag yàlla may ko ni ko am di waxee ñoom ñëpp sadrul islaam xasaan ñoo doon tagg yonent bi mooy tagg na ko lu man am mas na ko wax sax ne ko wa ahsanu minka ajmalu minka lam talidi nisaa <laughs> ku la gën a rafet sama bët mosu koo gis jigéen nit mosuta ku la ëpp taar daal ne ko xuliqta mubarraan min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tashaaw mu ne ko yow yow yow amu benn ayib daa mel ne mm. dañ la doon wax ne noo bëgg a mel nga ne nga nii laa bëgg mel cër bu ne ñu la noo bëgg mu mel ni mm. nga ne nii laa nii laa ko bëggee mm. ñu defalee la ko noonu waaye waaye li nga li ngay wax ci sëñ bi boobu waxi sëñ bi laa bëgg andi waaye gis nga moom loolu lépp ni nga ko defee ci wenn bayit wahuwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi waxu moom yonent bi akmalul wara muy gën jaamati mbindeef yi xalxan ci bind wa xulxan ak ci jikko li ñu daan wax ci bayit yooyu yëpp. wenn euh, euh, indi ah, ko ci indi ko ci benn xel. benn satr waaw ah, satr ab kemam. xattu mukk lan yoraat deefu ko gis. wala ñu yoraat deefu ko gis it fi séemi ci ay jikko. jeex na li des ci àdduna. mu dajale lépp ci wenn bayit woowu. kon sëriñ bi noonu la ko yàlla mayoon boo gisee kax bi ñoom daanañ tagg yonent bi boo séeri daana tagg yonent bi kax bu waaye inna rasula la nuurun yustadaa bihi muhammadun min suyuufillaahi masluul waaye sëñ bi bi mu ñëwee dañ inna rasula la nuurun muy wax ay rafet u bu wax yonent bi leer la koo xam ne dañ ciy leerlu di jëesi indi joo xam ne dañ ko boccee ci jëesi yàlla yi waaye sëñ bi ne inna inna rasula la nuurun yustadaa bihi muhammadun min suyuufillaahi battaaru ju dem dogaa yëmut ci ñu wàcc ko rek. day dagg day dagg waaw day dagg. sa ko bocc. waaw te doo ci dagg. Eh. boo ko defee nag sëriñ bi noonu noonu la ay waxam wuteeg mu dellu soit wax ci yenent bi ne maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun faltaqar an suratun mm-hmm. daraje yenent bi ci kurut yàlla nee na nëbb nañ la ko nekk lool nag bu fekkee wax ji daf laa léerul demal ca suurtu nañ mi nga jàngal fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa yàlla boo demee ci bayaan dañ lay jàngal ne lëm lu rëy lañ koy def waaw te yàlla da koo lëm waaw waaw fa awxaa wax yu ne ilaaha bi jëm ci jaamam maa awxaa lam ko wax yu <laughs> lam ko kenn yàlla rek ko xam xamala kenn moo tax sëñ bi ne falaa taxisum na abdillahi bil fadala innal kawaakiba yox fiiha sinimaaru bu leen jiima xiyaas yenent yu ak kenn ndax biddiw bu weer feeñee da koy nëbbu da koy nëbbu waaw bu jant bi feqee rek biddiw dut feeñ waaw lil mustapha xayri xalqillaahi mansilatun biddiw it bu weer feeñee du day lëndëm waaw mu ne inal kawa mu ne lil Mustafa xayri xalqillaahi man silatun la wujjiha nahwaha kullal wara xaaru mu ne yenente yenente bi am na moo mi ngeen ji mbindeef am na wàccuwaay boo xam ne mbindeef yépp bu ñu leen ko tegaloon ci baax dañuy gëlëm bu ñu leen ko wanoon ñoom ñëpp gëlëmandoo ñoom yenente yi waaw ñoom ñoom yenente yépp ndegam kon kon ah, yeneen ñi nag waaw ah. ah moom kay xam naa li ko. wala ordinaire yi xamuñu lañu def <laughs> moo tax eh, Alaaji Abdu Si daan wax ne wenn way wi képp doy na doy na gàmm. doy na gàmm huwa alladi faaxa siwa minal baraaya bi huda xataa bada kat bu suma fi arsikal muasal koo moom yonent bi àlla si mooy ka nga xam ne faaxa kawe ne si wax kudul moom rek minal baraaya ci bindee ah, kon bayut kenn bayut kenn ñëpp si kudul kudul bi yonent bi la kawe bi huda ci jubam nga nag xataa badaa ba mu feeñ kat bi suma bind turam wa fi xarsikal hmm. moos ba ba yàlla may na ko daraje ñu yonent bi ñu bind aw turam ci aras ah. moo tax kon hmm. li sëñ bi wax rek li kullin min as-saadaati jaahun wa xurmatun hmm. sang yëpp am nañ daraja am war ma walakin na jaaxal mustafal bari yaatali waaw ndax na loolu moo dëppoog li mu waxoon rek ne euh, ñoom ñëpp baax nañ waaye bu biddiw bu weer feeñ feeñee du amat da koy nëbb kenn du dox biddiw bee leer waaw waaw moo tax mooy lii rek sang sang yëpp am nañ daraja ak ma mm-hmm. waaye nag daraja yonent bi bi xasee ñëw day muur ñëpp sallallahu ko defee nag kon guddeem gii lu mat a la mawliduhu muazzamu mubarakun muhtaramu mm-hmm. tansimuhu yanxatimu ala sabi taxatum mm-hmm. sëñ bi neen gan ak àdduna yonent bi lu rëy la luñ màggal la luñ barkeelal luñ wormal war màggal ko it war na ci kilifa yi ndax ñu di leen ci roy fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuhasabu xada xindal xisaabil mufim ku màggal gàmm de hmm. te defe ko niñ ko waxe bu deesu la isaab ci isaab ba nga xam ne day wedamal buñ ci àggee hmm. yow da nga ci mucc waaye nag màggal gi nag daa mu yoon tanzimuhu bi sunnati hmm. yaa ngi koy defee ci aw yoon yoon moom mooy ne ci neex yàlla ne ci loo xam ne eh, ak jaamu yàlla la xibaaratu doo ci fo doo ci def la loo xam ne daal tiyaaba wóor na la ne ndax ku ne war ngaa bàyyi sa xel sa sa bopp ne kiraaman kaati bi nag ngi lay bind nga fas yéene nag ci gàmm gi profitoo ci fàttaliku ci yonent bi fàttaliku ci sunna si fàttali ci dox yi nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fas yéene ci jaamu yàlla fas yéene ci salaatu ala nabi xasiyaa yi di sëñ bi yi nga xam ne lépp salaatu ala nabi la mm. ak mattu yeneen bi mm. nga jàng ci ba mu doy sëkk mm. mooy mooy mooy taxsim bi sunnati jëw ci yor sa kurus di salaatu ala nabi mu ne bu ku ko defee noonu ku ko jaaree ci yoon woowu yaxoo du naa dana wow ma ne lil jannati bi it bi nekk na ca isdiyaadul minnati dolli ko xéwal da ka defee noona dana ko gis waaye nag li muxlisin muazzimi ki sellal hmm. tey màggal dëgg dëgg màggal moo ciy mën a amee lool kon yàlla na ko ci yàlla def kon ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen soññ ci bis bi hmm. tey ñaan yàlla dimbali ñu boole ñu ci ñi ko dundal